mi ma jigéen tey li ñu bëgg waxtaanee incha allah ginnaaw bi ñu ñaanalee Cheikh Bara Ndiaye ndax saa yu masaana toog fii alaaji euh, ànd kook moom ci ñaan yeeg yu nekk defe naa jot nañ ko seeti sax foofu lef mu nekkoon démb nag juge bi nga xam ne moo ko doon déglu te yore enquête bi bàyyi na ko maanaam daal may na ko euh, liberté provisoire wala boog li nga xam ni sax moom mooy euh, daal kii naka. ma jigéen Diop liñ may Cheikh Bara. Ah, eh, am na beneen bi kii. Eh, parce que waa sous contrôle judiciaire waa mm. sous contrôle judiciaire parce que ba Baye Mbaye leeral na ma ko démb. Mm-hmm. Euh, sous contrôle judiciaire la. Mm-hmm. bu ànd ak nag euh, liberté provisoire. bu njëkk si weer wi mu ñëw signé ni mi ngi fi te dootul wax ci dossier bi nga xam ni moom lañ ko jàppee. Euh, gannaaw ba nag nee nañu nag parquet moo ci des moom la ñuy déglu moom fii ak semaine am na cinq jours yoo xam ne daal mën naa déglu Cheikh Bara ko demal mais juge bi moom pare na ak Cheikh mm-hmm. ba def na li mu waroon delloo nañ ko ay téléphone kon incha allah mën nañ cee yaakaar jàmm ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax lu doy waar la am fële ca Cambérène démb euh, wala boog bërki démb muy lu doy waar loo xam ni ay nit ñoo fa teew yu ñàkk seen bakkan duggoon ci gaal doon tukki tukki bi jaarul ci yoon mhm. gannaaw ba nag vice président bu tefes bu wokkaam boobule bi ñu ko laajee daal ci li mu nettali ci nee na ñenn ci gaal gi ñoo ko nettali ña doon tukki la waral loolu le dafa am ay bateau yu leen doon dàq ci biir géej gi gannaaw ba nag ki doon conduire moom moo perte contrôle xëy na ci la jéejo commencé bato ba nag nee nañu gaal ga ba muy dem nag yeb na lu toll ci cinquante personnes waaye nag euh, lañ ca gis daal fii ci tefes si mooy dix-huit personnes yu faatu ak ñett yu ñàkkul seen bakkan kon ñi ci des anañu mm. gannaaw ba nag ministre bi moom Antoine dem na fa nee na président dina jë mi ngi ci enquête bi wala bokk euh, état bi dina def lépp luy enquête lu waral loolu le mm-hmm. bés bu Amadou Ba nekkee candidat benn Ousmane Sonko am na problème loolu mooy kàdduy Siré si mi nga xam ne ab chroniqueur la ci réew mi ma jigéen Diop waaw sooy bu xanaa di ñaanal rek euh, Cheikh Bara Ndiaye comme ni ñu ko yàgg euh, defee ba mu dem ba kenn dootu ko toppee euh, sax kaay signé chaque chaque chaque chaque weer. parce que loolu tam daanaka coonoon la rek la koy jural vu que ni li lépp loo xamante ne ni ay enquêtes yu ñu doon def la jël téléphone am confisqué ko. Mhm. ba niñ ko delleewoo gisuñu benn preuve buy wane ni mën na ko inculpé. Mhm. donc loolu rek doy na wax alhamdulilah ñu ngi koy ñanalaat bu baax a baax. yàlla suñu borom euh, taxawu ko mhm. tey ñaanal encore une fois Bassirou ay Faye ak képp ko xam ne rek ñi si ci biir yëpp euh, voilà vraiment mhm. ñi ngi ñaan à que ñoom itam ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen i kër parce que soñ bu mhm. defu ñu fi lu rëy loo xamante ne nii daal man pour man war nañ leen na téye ca kaso ba ba heure bii nii kon nag mérité nañu ni ñu delloo leen seen i bekk ay ñoom Lamine Niass ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal d'accord leneen li nga wax nag si mbirum euh, te ngaa sooy xam nga nit moom bu toogee si tele di wax di joxe ay analyse am mhm. euh, parfois man dama naan siré yenn information yi démb rek ki ñu invité woon muy Cheikh Ousmane Touré maa ngi ko koy laaj ba mu naan ma ay information la am mais bëgg naa itam vraiment buy waxati mu mu mu muy seet li muy wax parce que bu taxawee di wax ne Amadou Ba mën na indil euh, problème ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko. Mhm. démb euh, le gars expliqué na ko ba mu net mu ni si poids électoral. Mhm. munu ko munu ko munu ko sonal parce que ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko bis bu bokkee ci élection yii nii. Mhm. son yi bu di ngeen fi gis lu ngeen mës ta gis. loolu moom leer na Sénégal gi yëpp peut-être nag si côté bi mu doon waxee naan ci côté sëriñ ak euh, contact yi mu am. Mhm. Ousmane Sonko itam man jàpp naa ni peut-être amul lu am amadu Ba amul lu Ousmane Sonko amul peut-être su ñuy wax ci ay mbirum ndombal tànk lay doon te loolu aussi yàlla moom moo koy tab nit. kon mhm. donc man daal gis Amadou am na xaalis waaw am na xaalis. Mhm. mais euh, xaalis mooy lan sooy. xaalis mooy politique nag day day mooy politique. Ah, mais Ousmane Sonko yàlla du koo dimbali ba am na ñu koy politigal bracelet yi ñaata la si jaay. bu wootee fii kañu ñaata lañ koy ñaata waaw ak lu si mënti doon moom ngeen bëgg a demee campagne lu mu si mënti doon rek bu bu taxawee woon nii tey jii nii gars yi kaay leen cotiser lu ma campagne yi gars yi cotiser ko ko kon donc foofu man jàpp naa ne du wax ji il faut tamit ñu bàyyi di genre di def di defal pro promotion xama propagande nit ñi loolu aussi baaxul son ay aywa kon maa lépp euh, kii bi géej gi wakaam bi incha allah alaaji gannaaw Cheikh Bara ñu ñëw ci Siré waaw Cheikh Bara waaw ñu ngi am mbégte. Mhm. bu baax a baax euh, di ñaan rek lépp teggiku daal. Mhm. lépp daal dee teggiku mais am nañ ci mbégte bu baax a baax di ko ñaanal. d'accord di kontaan bu baax a baax ci ni yëf yi demee. Mhm. macha allah. d'accord ñu nuyu ñëpp nag ñi nga xam ne jàpp nañ ci sonn ci. d'accord Sénégalais yëpp. aywa Siré. nee na bu Amadou Ba demee Ousmane Sonko am na problème bu mu dul nettaleeti fenn waaye bu président Macky Sall demee nag na dem naani kafe dem toogi jàpp njàmbur midi moo ko tàqaleeg Ousmane euh, kii euh, Macky Sall. waaw xam nga démb bi ma lay wax. Hmm. dama dama xool angle bu war a tax mu wax loolu. après gisuma ko tama ne la bon la koo xam ni sunu borom may na ko ci wàllu xel. Hmm. xalaat parce que dafa wax yoo xamante ni bii. Hmm. boo ko seetaanee wax ku daanu ci saret la. daanu saret que bu nee Macky la président Macky Sall li mu am pesé ci électorat nga xam ni ñëpp ñi nga xamante ne bi tey ñoom la Amadou Ba soxla pour ñu ànd ak moom te àndaguñoo ak moom ñëpp ànd nañoo ak président Macky Sall. dëgg la kooku moom bu fekkee ne day dem ak moom élection bu ko neexee moom na tëddi nelaw. waaw ba noppi mu ne Amadou Ba moom mën naa sonal kii xam nga loolu du waxi. maanaam ki dajale électorat yëpp. ci wàllu bennoo ki dajale yëpp bennoo. bu dee moom bu demee ànd bu demee président. Hmm. président mën na ko du mag euh, Sonko mën naa naani ataaya ah. waaye buñ seppee ki nga xam ni moom ñëpp ànduñoo ak moom kooku mën naa sonal Sonko xam nga loolu du waxi ah, kon waxi lan la <laughs> wax daan ci sareet la loolu mu wax noonu donc léegi li mu jublu ci wax ji nag laa la bëgg a wax lu mu ci jublu xam nga wax waaw da ngay xool but bi lan moom lan mooy jublu fi mu toll nii le fait que ñuy wax Amadou Ba Sonko siré kere na lool loolu rek la doon wut loolu la wut lay wut moo tax gars yi bu ñu defu ndànk dinañ tàbbi ci piège u Siré parce que Siré li muy wut lenn rek la. mais Siré ab chroniqueur bu yàgg joxe xalaatam la waaw mais bu yàgg joxe xalaatam mais nii mu ko joxee li li mu jublu ci wax ji lii la ci jublu. maanaam ñu naan Sonko. Sonko Amadou Ba bu boobaa. waaw Ba day am ñaari mbir. mooy maanaam xam nga dañ doon wax Ba Aly Ngouille Ba. Abdoulaye euh, Daouda Diallo Ba Boun Dionne. waaw léegi sire da ko seppi foofu. léegi ñële kon day mel ni moo leen gën a légitime maanaam moom moo leen gën a taxaw ok est dégg naa léegi bu ñuy wax naan Amadou Ba Sonko mhm. day tax Amadou Ba am lu mu tekki léegi ci mm. biir parti bi maanaam léegi génneen nañu léegi kuy nekk mbëru bennoo mais ñi ngi ci léegi kan moo mën a sonal Sonko léegi moom dafa éliminer ñële ah. ba nopp ci wax jooju rek buñ deful ndànk rek léegi rek bu deful ndànk hmm. booy yi ñoom ñooy fal Amadou Ba mooy booy yi partagé waxu série jooju tamit nekk fi naan Amadou Ba non Sonko du moromam ñoo ñoo nar a def Amadou Ba candidat <laughs> buñ dugg ci sëb yi <laughs> waaw mais buñ fàtte nag série barki démb barricade bi moo waxoon li ko fi génne loolu loolu du analyse nee da ngeen ah, xibaar la boo loolu xibaaru la xibaar la boo jàll mais da ko analyser dafa toog analyser ko boobu affaire ñëw du du analyse lan la information la na yàlla xibaar xibaar dafa am am na xibaar. waaw mais xibaar mooy inform mooy nekk information laaj. non xam nga analyse. waaw euh, dafa xamu tey. boo nee day xëy rek ñu daal di koy def nii. nii lay demee nii ak nii. donc loolu xibaar la boo xamante ne bii jàllale na ko. mu demee noonu mais loo xamante ne bii ci ay analyse xam nga wax na la ba wax la ne la for na ci wewu bëy xaw ma lan. Euh, bi def nii loolu du analyse loolu ay xibaar la yoo xamante ah am na ko xibaar waaw xibaar yi fan la war a mën a jóge waaw loolu nag la tax muy wax la di Amadou Ba hmm. toppal lool rek peut-être am na alaaj doo topp lool loolu nag yow mi ma doon topp ba nga dugal ma fii yow mi laay topp du ma topp lool yow mi laay topp doo ma topp ah déet man nekkuma ci lool <laughs> ah déet ma jigéen kii bu doon ab seetkat ñu ni siré vraiment mooy maanaam seetam gi mooy seetu lane bi hmm. non parce que ni mu ko waxee woon ci fan yi di ñëw da ngeen xëy rek police yi dem seen yoon Ousmane Sonko sax day génn rek du leen gis affaire ba noon la demee Ousmane daa génn mook ñoom waaja gi gisuñu kenn son yi bu waaji démb laaj naa ko ko ma ne ko information wala analyse mu ne ma carrément xibaar bu mu jot la ah xibaar bu mu jot la bu mu jot la buñ ko wax la dañ ko koo wax nekkul loo xam ne dafa ñëw analyser nii rek de information la ba ma naan ko jaloog bi muy wax di wax naan indirectement la ko fa yéene def kii ba mu naan ci sous région bi lay doon yooyu yëpp ay information yu mu joxe la yu ñëwagul mm-hmm. informe la de du analyser <laughs> jaaxal na <laughs> kon alaaj boo yee rafal a fal Ba buñ deful ndànk booy nag bu ñu yéex yeewoo duñ ko sax jox crédibilité <laughs> bu buñ ko joxut crédibilité rek du génn géew bi parce que fi mu toll nii waa mais alaaji léegi nag euh, kon xam-xam lañ nar a rey su fekkee nii la demee hmm. mooy Siré dañ ko doon déglu jàpp ni xam-xam maanaam nit kuy wax waxee xam-xam mais su fekkee nii nag itam ay information la yu ñu koy jox muy jàll kon ñu ngi rey xam-xamam. non non loolu bu dee noonu la demee. non non non non non non non loolu lële xam nga fan la de fi mu waxee ne moom lay def analyse. Mm. mooy ci affaire Amadou Ba bi te loolu mu def loolu du analyse. ah <laughs> loolu lan la. Ah, mais nan nga mënee jël koo xam ne soo yóbbu moom bu dee moom. bu dee dañuy dem élection. Ah. Cheikh ñas mii tey. Ah. ñëpp ñi ànd ak Walfadjri moom la àndal te waaye bu génnee dem ak keneen élection kooku mën na koo gañe waaye Cheikh Niass mii tey bu son yi bu demee élection. Ah. son yi bu mii. ñëpp ànd nañu contre na ko. kii contre na ko ñii duñu ànd ak moom waaye kii moo mën a sonalaate loolu mën ne xam nga loolu boo ko waxee rek. waxi ku daanam maanaam kii minorité la. waa kee di majorité. léegi minorité bi mu ni mën naa sonal kay. waaw. loolu mënul nekk quoi. d'accord c'est xam nga loolu tamit bu te et puis xelam ëpp na loolu moo tax lee dong la ci jublu. ay waaw ma jigéen ko